léegi nag ñëw nga daaru ñu ngi lay caméra waxal la nga waxal Touba ak daaru gan la loo daaru gan la ay dëbar nag wax li ah, kenn ku di yem sa territoire na géwali daaru di yem daaru géwali Touba di yem Touba kon heure de communication la woon kon nag léegi da nga koy jéggul devant tout le monde ñu dégg jégglu xam nga ne sa waa ji wax vidéo bu di këram keroog moo lay woo sa fa la jëlee sa yow laay waxal de yow ñoom moom lay woo ci buntu kër maam yi Malick kii moom itamit daal de na cappal sama téléphone cent cinquante mille ah, ah, ah, kii à trente so ak xaalis bi waaye loolu lépp wax ko soxna mën a kii moom lay wax ko tëgg na ko cappal ci man barke man ca